di ñaan suñu borom subhanahu wa taala bo lañu def ñu tawfiq àdduna ak al-akhirah kon ñu delu ci seen jataayu asrar di leen koy defal di seen mbokk suñu maamul si la firdaw ci asrar tay nak ñu bëgg waxtaane wala joxe sekkare ci ismullahi latif muy ismullahi asam bu magga magga ñu bëgg leen ko jox ba pare nak leral leen ko bam leer ba ñu mën ko jariñoo kon nak ngi wax ngeen man ko tewlu te bañ yakam yàkkamti ku ji bëgg a jariñ jariñ gu mat sëkk tewlu ko dañ ko wax bam leer nañ insha allah taala def sun kem katan ba kep ku ñu ci te bëgg ko jariñoo man ko jariñoo di wax nak bismillah aslam latif mo mën ko wax xana ñepp war nañu sawar da ay tax ñi ëpp sax danañ sawar ndax latif moy tur yalla bu mag bu tedd bo xamni ñepp ko dëgmal ñu bëgg njariñu àdduna ak laaxira ñu ci bëri dëgg ma lañ ko ñeneen ñu yoreen fluide am na ko waaye latif da daa amuk jagleel goo xam ne ñu ëpp ci nit ñi dañ koo jublu moo tax tey indi nañ leen secret am solo defoon nañ ci nag vidéo doon leeral eh, istixraaju latif doon ci leeral yu am solo doon adad yim jàpp moom nga latif adad nafsi yi mooy mooy cent vingt neuf moo tollu muxti cent vingt neuf eh, mafasan nga ci alquran te surtout na bay inna lil mutaqina mafasan googu eh, mafasan googu muy tolloog 129 la momit it diinu dunya diine dunya muy diine àdduna ndeysaan moom it boo ko adadee dunya 129 la lay japp kon ada diyem bo adade talib ak matlub aji sakku ji ak la sakku yep 129 la kon latif latif da la ngi ni may waaje kon ñu tewlu ñu jox leen ci robbo ci am solo ko jëfandikoo suñu borom defal la ci tawfiq nga man ci amé nga man ci am lu ko sa njool inshallah kon dal ichamal bi moy ni moy li ci robbi nak eh, ñu ñëw ci tarjumaan ko di mooy soro bu màgg boo xam ne bismillah sam bu màgg boo xam ne wax nañ war nañ koo nëbb ñu dof ñi ak ñu dese ñi ak naafeq yi lu tax ku xam secret bi da nga taxe taxe gu màgg mooy wa man arafa faqad faaza fawzan aziman haza sirrun azimun fi jalbil ashraq wal amwali wal xayra wal xayrati wa tasxiil al xalaiq wolu ba tey ci ginnaaw wa fat baabu kulli xayrin wa dafu li kulli sarrin wa jalbi jamii asnaafi al amwali wal karamati wa darajaat tataqul alhamdulillah kon daal cero bi mi nii muy loo xam ne lu màgg a màgg la lu ñut di la ak alal yi ak yiw yi di tàgg la tàggat tam mindeef yi mboolem mindeef yàlla yi cero bi ko jëfandikoo yàlla dañu tàggal ñu am ceew cafeel am ci ak ñeewant kon li ñu wax sànq muy wa fatu baabu kulli xayrin mi ngi nii wa dafale kulli shayin wala ubbil buntu bépp yiw jañal la wala tëjal la buntu bépp ay waaye wa jal bi a jami asnaafil amwaali wal karamaati wa darajaati ata taqul alhamdulillahi rabbil alamin waaye dina la xëccal itam mboolem alal yi yi mboolem alal yi ci ëpp solo dana ko xëccal defal la itam ay karama ay lay karaam ak ay daraja nit ñi ba nga wax alhamdulillahi rabbil alamin ba nga sant yàlla icamal bi nag kayfee bi mu ngi nii icamal bi nii la da daal di julli ñaari rakka salla rakaatayni bil fatiha wa hiya ñaari rakka rakka na nga jàng ci fatiha ak aaya bii mais aaya bu tedd bi nga xam kuy jëfandikoo la ku ne war na ko xam wala min na ko allahu latifun bi xibaadihi yarzuqu man yazaau wa huwa xawiyul aziz allahu latifun bi huwa xawiyul aziz aaya bi moom ngay jàng ci gannaaw boo defee fàtte nga jàng ko benn neuf wala cent vingt-neuf li may conseil comme nag mooy na koy def cent vingt-neuf saa yu jàngee ba pare jàng aaya bi cent vingt-neuf bu ko bu fekkee ak jotam bariwul itam ak waxtu wi xat na na ko def vingt-neuf bu ko defee vingt-neuf ba pare nag ñaari rakka yooyu julli ba pare mu dal di sëlmal gannaaw bu nag dafay daal di wax mu wax lii mooy lan mu wax gi jublu mooy day sikkar kon nañu daal di wëlbati paas bi dem ci beneen paas waaye li ngay sikkar mooy lan li ngay sikkar muy astax muy istixfaar bi muy istixfaar an yaqim muy astaxfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum astaxfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa al qayyum nga sikkar ko ñaar cent vingt bu leen fàttali nag ba léegi cent vingt-neuf bu ko ëpp bu ko wàññi nga sikkar cent vingt pare nga sikkaraat lan salaatul fatiha salaatul fatiha cent vingt neuf salaatul fatiha am naa ñu bëri ci nit ñi xam nañ ko waaw xëy na ñëpp sax na ñëpp nag rek kon ñi xam nañ ko salaatul fatiha nga sikkar ko cent vingt neuf uh, bu loolu weesoo nga nga nga nga salaatul fatiha wala salaatul ummi yu boo ci a baax na nga def ko cent vingt neuf mooy salaatul fatiha aw salaatul ummi yu loolu lañ ci bind salaatul fatiha wala salaatul uh, kitaab nga sikkar ko soixante dix بعد ذلك تعالى موي a لله a العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد باتا فم ياخ بوب sax moom la ñëpp mën a xam dañuy bañ vidéo bi gudd moo tax bu ko paree itam bu ko defee nga dool nga doog a jëfandikoo sikar bi nii nag ba def bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim nga sikar ko sama benn nag basmalatu foo ko gis mooy bismillahi rahmaani rahim yow mi doog a dugg ci la saar basmala mooy bismillahi rahmaani rahim ndax ñun bu ñuy dañuy bàyyi xel ñi da ngay waxum secret ba pare ñu doo koy laajaat laaj goo xam ne daanaka da ngay xam ne kii day dogut ci la ci lasaar moo tax kon basmala boo gis mooy 129 la ilaha illallah muhammadu rasulullahi 129 la ilaha illallah Muhammadur rasulullahi 129 boo koy nag nga doog a sikar nag yaa latif ismul ansam bi yaa latif nga sikar ko ñaata 909 909 nag mooy juróom-ñeent junni ak juróom-ñeent juróom-ñeent junni mooy fukki junni yu après nga la yaa latif juróom-ñeent waaw muy secret bu am solo boo nag nga doog a jëfandikoo ayat ayatul quran bii di allahu latifun bi ibaadihi yarzuqu man yashaa wa huwa al-'aliyyul 'aziz nga secret ko 129 boo ko secret nag 129 ba pare ngay daal di jël sumaati a ruhaani ñeent ruwa ñeent ruwa ruhaani latif yi moom nga jël muy ban yaa laxtarusin laxtarusin ruhaani latif ndax latif ruhaani jigéen mooy latif ñeent eh, latif eh, tur yàlla bi ñeenti arab la muy laam gi ak taa gi ak faa ak yaa gi ak faa gi kon laam gi nag mooy laxtar wusin faa gi mooy taxtar wusin mooy rawxaan yaa gi mooy yemlal wusin euh, euh, faa bi mooy fay dar wusin bi mooy fay dar euh, bu ko defee nag kon latif ñëw na rawa ñeent rawaxaan yi nag bu ci ne yaa laxtar wusin cent vingt-neuf nga koy sikkar yaa taxtar wusin nga sikkar ko cent vingt-neuf yaa yemlal wusin nga sikkar ko cent vingt yaa fay dar wusin nga sikkar ko cent vingt-neuf boo ko cent vingt-neuf nga doog a ci talsam bi ñu dee ma talsamu saxiir dañ ko tudde nag talsamu saxiir dañ ko tudde noonu waaw adat bi adat bi adat talsam bi moo jàpp huit cent waaye nag daja am beneen bu nekk ci ginnaaw moo tax ñu wax bii talsam saxiir waaye da mën nañ ko wax talsam kabir waaye ba ca ginnaaw daa gën a màgg moo ñu ñu doxale ko nii kon nag lii ngay sikkar muy lan alhamu da ngay def ndànk nga xool bu baax te jim ko bind yow mi bind ñu li ko ndax mu gën a leer ci yow muy alhamu saqaku alahu alahu yam yamaka yamaka haysun yamaka hay asun alhamu saqaku alahu yam yamaka hay asun alhamu saqaku alahu yamaka hay asun dafa xaw a naqari lii tuuti moo tax waaye moom cent vingt neuf lañ koy sikar cent vingt neuf lañ koy sikar ismu ismu jaal la boo xam dañ ko jaxase mooy eh, eh, eh, xam sax wala yes kon bañ a guddal cent vingt neuf nga ko sikkar wala itam nga sikkar ko téeméer yoon boo ci sikkar ci adad baax na bu de defee nag nga doog a jël talsam bii nag ñu tuddee talsam kabir waaw mooy li ma doon naan tax maa ngi talsam saxir bii nag nga tuddee ko talsam kabi kabir moom moom nañ ci bind sama talsam kabir al maxfi talsam bu mag la boo xam ne bu ñu nëbb la waaw bu ñu nëbb la mooy nekk nii muy wax wa ñi nga koy lire da ngay teelu bu baax siin yëpp na nga bàyyi xel ni ay siin bu tooy la waaw siin boo ci dégg rek na nga bàyyi xel ni siin bu tooy la mooy siin bu tooy mooy bi nga xam dañ koy combal ñett ci kaw kon nag da ngay daal di wax mataxasun sun jadda jabba da boobu daat la bind nañ ko sax xam naa ko ci xol bu baax mbind mi leer na jada xajun jada xajun nuru nuurun latifun muhammadun nurun latifu muhammadu ma nga jàng nag bu ci ne eh, nga jàng ko ah, ah, maska yi benn nurun latifu muhammadu fayrusin fii la ismu asam bi yam mataxasun saxsasun jada xajun nuru latifu muhammadu fayrusin nga sikkar ko soixante-dix ismul asam baa ngi ni ngeen ko bu baax nga sikkar ko soixante-dix wala soixante-dix-sept wala téeméer yoon wala cent boo ci ko ci adal baax nga doog a jàng nag sirrul muntawi boo pare nga doog jang sirul muntawi juróom ñaar yoon moom nga koy tejje sirul muntawi bi nak mën ci ñak nañ ko baye xel ndax ismu asam bi dafa dafa dis boo pare nga doog a jël e, e, e, sirul muntawi bi ko baye xel ya nga defal na video am na bu ma ci bu ma defal ba waxale ko ci ko amagul sirul muntawi man nga dem jël ko fofu waye na ngeen baye xel ni sirul muntawi lu am am solo la rawat na ci secret bi ndax yeen ci nga am day am tal sam yu maggi sirul sirrul muntawi moom ngay liggey pour mu wañi da nga raji ba am ben lorange lii may wax ni nag talsam yii nag moom ndaw lu kuy ndaw ku ne ñu leeral rek ngir bañ a sànk na ñi ndax kuy jàng kuy jox xam moom ku nekk lay teewlu kon daal ngi sàkku képp koo xam ne ndaw nga luy doog gëstu asar lii nanga ko gëstu nga daj ko da bàyyi ba am fanweer at jëm kaw nga doog ko jëfandikoo ndax talsam yéen talsam yi dafa gaaw ci lore yéen talsam yii mu ngi béy suñu tooy lu màgg la gaaw na ci lool waaye la ma fi leeraloon rek ni talsam talsam moom Euh, dafa mel ni lii nooyal gura rek gura moom bu ndaw dee lekk jërul muy muy wut lay nooyal gura ndax ma ma ngi kii bañ gura nag lay la koy nooyal la ko tax a jóg mi dem ba ba ba ba ba ay bañum tàmbalee woyof wala mu ñàkki bañ waaw waaye yow mi ami bañ daal da jël jigéen tur yàlla yi nga xam ne ànd ak talsam moo gën doon talsam lu gaaw la te ñu bari nit ñi bu gaaw lañ bëgg waaye nag Eh, yow yow mi yow yow mi ami bañ nag boo dee lekk luñ boo dee lekk lu ñu maq na nga koy lekkee mën naa gaawaay gënut sàq mi ci say bëñ rek moo gën waaw kon yow mi nga xamante ni am nga ak wér tey ndaw del jël turu nga ngay jël turu yàlla del jël dee ko werdu waaw del jël turu yàlla di ko di ko wér turu yàlla yi comme latif ci aradi am xaw yu wala dam-dam wala sax tawix di ko werdu noonu sa aajo dina faju tey li bëgg da nga am te yooyu sax nañ ci wax yoo xam du ànd ak toosam nañ ci xam naa incha allah waaye bii nag pour ñoo ay mag lañ dem nañ ba amatuñ ak wér mën a du yàgg wala seen jot nii nag pour ñoom la waaye nak ku gëstu ko ne nag mën ngaa jël lii denc ta xam ne xam-xam la xam-xam moom gëstu denc rek am na ndaw it ñu am fit di ko liggéey waaw waaye nag lu ak lu mën di doon koo ci man di doon boo koy liggéey da ci boole selu moom tamit allahu taala kon boo boo daal di pare nga daal di jël euh, kii bi ñu bind nii muy nga bind yàlla tiifu junni yoon ak aaya bi wenn nga koy bind wala cent bind nag comme niñ ko waxee sànq ci ci julli gi boo paree nag lii mooy cangaay da nga koy faral di sango diiru juróom-ñaari fan incha allahu taala kon tey lii la ñuy indi doon jërë ngeen jëf mbokk ñu topp dañu bàyyi xel koo ma négul nga abonné luñ fi dugal ngir ngeen jëriñoo ngeen mën ko jëriñoo jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh